mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu leen ziar leen wax ne ñu ngi ci cinquième édition CEP ci fin bi tey ñëw nag nekkoon ci résultat Mali waaye nag ki nga xam ne mooy maaraañee mi nga xam ne moom moo gañe woon fekk ma dafa ñëw confirmer confirmer xar xar nag bu ñëwee ci ñaari fois gañe ko teg la ko rek da lay war ne ay macération moom faussé lépp lu ñu ci wax dëgg la ñu ngi lay siyaar bu baax di la jox sa waa waay di la sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax ah. maaraañee ñëw confirmer na noo gisee lool waaw sant yàlla rek sant yàlla ñu borom bu baax a baax a baax a baax ak di xam ne mënuñu yàlla rek a mën ko waaw ndax euh, boo xoolee foire yu ñu jaar bëri na trop waaw depuis Tëngéej yow fekk na la fa mu nekkoon jeune mal nekk xale bu ndaw loolu yaa yaa yaa deux ans et quelque de cela waaw mu nekkoon espoir battre record hauteur def cent treize waaw foofu laa leen njëkk waxee cin bu naree neex bu baxee xeeñ sa du magistrat beeg gànd bi si kattanu suñu borom treize espoir espoir mu baat à treize mois moo gënoon nekk xale si xar yi parce que boo rappelé boobu yow yaa ngi fa woon mm-hmm. moom ak ñoom jasaako ñu doon concours ñoo ñëpp dañ ko magoon trop mm-hmm. ba ma génnee gars yi laaj ma dama leen ne rabbi cin bu naree neex bu baxee xeeñ kii dafa bokk géeru podium dafa bokk si magistrat bokk si gandi am biram ñëwén bu dëgg moom kon tey li bu ko amee daf ko war am bu ko amul daf ko war a am taw neewoon naa leen incha allahu rabbi fu mu yemeeg ñoom âge dugg

parce que Tëngéej dafa dem gars yi ne duñ ko dugal ma ñoom Lion ak ñoom pap man leen garaawul. xar bi lu mu metti metti compétiteur la fu mu dem day dugg day dugg pour ñu natt ay mensurations am xam ni màgg na li si des poids ñun dañuy def embauche dañuy yar ay xaru tabaski embauche yomb na bouse xar mu suur. kon Tëngéej bii paase dafa ñëwaat dugg. Tëngéej bii paase duggoon na sut fi xar yi jël quatrième. ñu kontaan lool man da xar bi dama ko loon yóbbu wallaay di kontaan. kullu éleveur nangul nangul ko champion période bobu non parce que xamone nañ ni bis bu gi bu fa bu fa bu fa bu fa da koy fad dafa waaw kon troisième compétition. don 3 troisième compétition. ñu ba quatrième compétition. waaw quatrième. na fila. oui na fila na fila mu fa gagné won bam leen da leen fété ok waaw waaw Vous da leen am ben mal buñ doon wax né mal bobu bañu ñu feulé dañ ne woon maal boobu ñëwul woon Kër Massar. waaw dañ ne mal bobu ñewul woon Kër Massar mu nekk mal bo xamné champion la c'est un vrai compétiteur aussi ñukay wax Chifa. mal mhm. la ah, mal la ndaanaan la mais lutax ñu gën ko duggal dañu bëggoon mu confirmer ni ñooñu mënuñu ko wallahi azim du caaxaan waaw légui motax ñu doon confirmer lool noonu mhm. parce que éleveurs yu bëri ñun bañ jëlé feulé dañ ne dañ nañu Baye daan mi leen gagné woon dëgg la gagné ngeen ko El leen gagné woon gagné ngeen ko mais des na benn maal ñu ne leen kan ñu ne Chifa te Chifa day ñëw foire bii nii. loolu ngeen pour confirmer moo tax ñu ñëw pour confirmer ñun fi fi kii fu mu juddoo nee la ragal du fa juddoo ngb do non ku ñu xam ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie non fi ngeen jaar yëpp te teewul ngeen xadi moom mooy wane ba pare fi ñu jaar dafa bëri dafa bëri te moom it aussi mooy li ma lay wax chaque jour di ko rappeler gaay yi pour muy leer li may wax Pape Gueye maintenant xam na ko bu baax ndax boo xoolee maamam bu góor bi nga xam ne moo jur yaayam wax naa leen ko na leer keroog ndeysaan président Abou ba mu ñëwee ba mu jëlee fële def na léegi une semaine ba mu jëlee foire bee ba mu ñëwee laajaat ma ne ma rappelé ma ay pénigré ma ba ma ko nee salti podium dafa ne ma j'ai son génneel ma foto bi waaw kii abu dana salti podium mooy maamam pénigré bi dañu jël doomu biram njéemé bu jigéen bergerie noflaay teg ko si magistrat mu jur góor ñu koy wax salti podium suñu benn grand recruté ko salti podium moomu nekk doom maestra ay ñoom muxsin topp si moom mu nekkoon génération ñoom muxsin papa ay ndigal ba ko xaadim euh, recruté moom mi nga xam ne moom moo ko jël jox ko Pape Sène daf ko jël teg ko si benn sëtu Birahim sumbulu juddu sumbulu moom mooy yaayu maaraam yi tey Pape Sène jël ko teg ko si murit murit nekk doomu Socrate Socrate xarañ xarañ Gandhi may rappelé nit ñi nag Gandhi boo mujjee yëg podium Adam muy kan Aldibo battre record TP ba pare jël premier Adam. Sao Gandi la. kii aussi Gandi la ba pare deux troisième bi battre record auteur muy kan bâtonnier jël troisième battre record auteur Adam kenn ajeegu ko moom it mu bokk si géer boobu mag magistrat bi maxu sëy ñëw ñu natt ko Adam sectoriel mu def cent soixante dix LCS def auteur cent dix sept kooku tamit magistrat la kon kii dafa bokk géeru podium lii bu ko amee waroon nañ ko xaar da koy am bu ko amul daf ko war a am ndax dafa bokk si pénigré podium moo tax ñu mu doublé ko deux fois. macha allah ah, en tout cas en tout cas Mara Dieng daal eh, confirmé na parce que tey moom tey la wane nag ni que c'est un champion. parce que tey boo demee ba nga xam. ki nga xam ne moo doon champion ñu naan bu ñëwoon ak bu ñëw mu ñëw tey gañe ko. Mm-hmm. kon il a nañ ko nangul xar xar euh, compétition moom loolu la. dëgg la ki ki ko daane rek yaa fi man kon euh, kontaan nañ. waaw ñoo leen gën a kontaan. yow kenn amul sa fay champion. <laughs> numéro bi numéro bi. numéro bi numéro bi 77. 352 69 41. fan la nekk. Ah, kii nu mu tuddati euh, ñaari tali. ñaari tali. defi la gaañ loo wax nag. waaw noonu la rek xam xar gi moom. c'est pas la première fois ma koy défilé donc maa ngi moom am na lu ñu sekk am ñu miinante. moo tax waaw pas ñoo nekk tout le temps sax mais damay dem si bergerie bi. maal bi tamit bon xam naa ni jafewul neex naa défilé donc maal moom da ngay moom rek. Ah, ku kuul la quoi. waaw ku kuul la parce que xam nga xaru 167 kilos doo ko jaay doole. waaw da ngay négocier ak moom rek bu doxee nga ànd ak moom. noonu la demee doo ko jaay doole dëgg ñuy gërëm suñu gaay yëpp. waaw ñuy gërëm suñu gaay yëpp te xam ni maal bi benn nit yoru ko dafa am staff bu wóor ku si mel ni Lion NGB. ku si mel ni Père Baye Matar Diop ku si mel ni moom Cheikh mi Serigne Diop Yamar Boy Salia xam nga ku lim juum. waaw affaire yi daal yaatu na quoi. merci grand kontaan nañ jaajëf. salaamaaleykum grand. Euh, ñëwaat euh, jugee jugee Kër Massar am ndam ñëwaat euh, fii nga xam ni mooy Sepp muy foire bu mag nga confirmer ndam li. ñu kontaan waay yi wax na lépp ci xar mi. mais tey wax ma rek quelques mots lan ngay lan ngay. waaw quelques mots moom lenn rek laa ciy def mooy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam Euh, di ko def comme ni ko mbëri def rek di sant samay waajur parce que chaque jour dama koy wax sama xarit yi may àndal man bu ma ñemee lu bëri ci àdduna muy ci sama société muy ci sama liggéey muy élevage bi nga xam ne nii maa ngi ciy góorgóorlu sama yaay dafa bokk ci ñi nga xam ne chaque jour dañ may wax ne ma euh, loo dugg boo ci ragalee rek yow la neex te loolu ngànnaay la boo xamee nii man dama ko dama dama koy dugal sama xel chaque jour ci lépp lu may wuti ci àdduna ñu demoon Kër Massar nag vraiment ci fekke ma bi yàlla may ñu ñu jël ko yaakaar naa mu doonoon surprise boo xam ne nii bettoon nañu bëree bëri euh, parce que nag xar bi ku ko xam-xam ne dem na concours ñetti yoon yoo xam ne ñu gañe ko ak ay moroomam ñu gañe ko ak ay moroom ñu ko mag sax nag ñu gañe ko mais wax dëgg yàlla ñun dañoo muñ rek lu te xam ne àdduna yemul ci benn félicité ñi ñu gañe ñu continuer liggéey bi xool li ñu manqué ñu jéem ko mottali voilà non dal lañu def ba yalla dimbali ñu genn ci ak alhamdullilah te duggoon ci ak bismillahir rahmanir rahim yalla def bi ñu jógee fee trois jours 4 jours rek lañu def ñu ñu ñëwaat fi ci set bi. gaay gars yi man leen victoire bi moma ma sax victoire Adam parce que lutax euh sénégalais ci bopam mo doy war duñu bayyi parce que comme nañ non xar bi mënul doon mënul mënul mënul mënul gañe xar yi yalla suñu worom dimbali ñu mu joggé fé vainqueur deful 3 jours ñu gennat vraiment kon bu ñu dellu si waatee fii suñu borom dimbali ñu ñun am ñoo xam ne nii man dégg naa ci ay nit ñi naan noo xar bi mënu euh, fee xar xar yi xar yi ko war a gañe nekkuñu fa moo tax mu jël ko mu ñëw yaakaar na yow xam nga xar amul xar bu ñëwul ci Sénégal xar yi fi mën yëpp ñëw nañ voilà léegi mu gañe leen largement point yu ëpp sax yu mu gañee woon fee kon nag victoire bi moo may gënal fuuf victoire bee ne mooy confirmation confirmation bi quoi c'est-à-dire rien à dire laay wax Euh, li ma ciy teg nag mooy vraiment yéen di leen sant bu baax di leen gërëm yéen surtout yow mi grand euh, tur bi laay fàtte Cissé Dia waaw mais wax dëgg yàlla gis nañ bu baax liggéey bi ngay def ak yaag say moroom ci biir liggéey bi mais ñu ngi ciy kontaan trop mais nag di nga ma permettre nga may ma tuuti rek ma gërëm sama gars yi nga xam ne ñoom laay àndal ci liggéey bi nga xam ne tey bu doon man ak man rek du dem bu doon maaraa ak maaraa rek du dem mais ñoom ñoom ñooy euh, maanaam ñoom ñoom ñoo ne ci gannaaw vraiment li ëpp nag ci liggéey bi ci kër ga moom maa góor góorlu waaw mais bu ànd jotee da ngay ànd ak say mbokk ànd ak ñi nga daan àndal démb tey doog a ñëw man dama gëm loolu comme nag yàlla xajaluñu kenn suñu diggante ñooy toogandoo même bu événement amul dara amul ñooy nekk kër ga vingt une heure ba deux heures du matin te ñoom ñëpp am ay soxna am ay njaboot bàyyi leen fa toujours ñu ngi sama kër wax dëgg yàlla amuma seen fay ku ci mel ni Vieux Manga xam nga ko euh, ku ci mel ni Lion mi nga xam ne moom laa moom moo géré bergerie bi jamono ji mhm. ku ci mel ni Yamar Njool Khalifa Saliya Gànna Fay vraiment moom Géejawaay la dëkk mën naa ne ay sœuru Mara ak ay frère ak frère Mara yëpp ay doomu Mara ñëpp a ngi bergerie am Gànna Fay fii la dëkk mu ngi nii toog mën naa ne moom fi la dëkk mais xiifuñu fi maruñu fi jëlewuma dara sama kër lu ñu lu ñu kii rek lépp këram lay jóge di ñëw ma ko ciy sant bu baax di ko gërëm vraiment di ko wax ne rëccuwuma vraiment ni ma ko xamee woon vraiment di sant euh, sama gars yep dal daal bu ma limee damay juum Baye Matar. Euh, mention spéciale pour Cheikh Cheikh mi nga xam mom moy défilé xar bi. vraiment mom dafa jambar la to yéné lay demee. vraiment bu ma limee xam naa dinaa mais vraiment gars dal eh. surtout ak ñi nga xam ni nak mom eh. dañoo bëgg marato xamuñu ma. xamuñu sax fan la dëkk. ñooñu moom aw ma fay. vraiment maa ngi kontaan bu baax a baax a di leen wax eh. rendez-vous inshallah, Adam incha allah ñu. tegaat ko ci tegaat ko ci donc kontaan merci beaucoup. ah Mara Dieng yàlla ko yàlla may wér. Ah, mu garde forme am. a a ba jëriñ élevage yëpp. Ah, amiin yaa rabi amiin ñun loolu la ñuy xaar surtout nag ba jëriñ élevage. parce que man wax la benn affaire. Euh, gis nga man ñu bëri dañ doon faral di juum ci benn affaire. Ah. tout le temps ñu naan xar bi yàgg naa génn ñu koy gañe ñu koy gañe kii ku ko gañe daa fekk la borom bëggoon ci moom la amul. gis nga boo gisee tout le temps ma ko doon dugal te poids bi ñëwul woon. parce que chaque jour dama leen doon wax staff bi ma ne leen. xar bi fekk amul trois ans olu sax bu ko ko kenn jox. ok yaa woon loolu. ma préféré woon loolu parce que lu tax maal yi daanu te moomu a leen ma toll fee di leen dégg to mu war ma ne mënoon nañoo jëriñ élevage lu bëree bëri bëri bëri bëri daf ma métti ba ci kanamu yàlla te bari na ci lu koy tax gagné concours yi moom mooy waral loolu loolu moom message la bu may laajee monde élevage. ñu bàyyi ba xar mat ñu doog ko jox ñu bàyyi ba xar am trois an jëm kaw. nga doogay ko loo ko sëf da koy attan. loko tek da koy atane fi ba 8 ans 10 ans mën nako dundou mën na garder formam te du am ben gal encore man lolou man mako préféré il faut ñu xam ko tay la koy je wax mais chaque jour nak bo man ma xamone lolou ba paré gis ne ñi ëpp mais gison naané à tout moment la di évaluer di xol fi ma toll ba ma am solo élevage mom boko bolé yakamti rek lépp tempo tempo la mais vraiment lolou que lancer comme un appel ci ñi nga xamé ni ñoo séx élevage bi ñi xar yi am an deux ans trois ans nga bëgg ko cent nangam kilo da nga koy yàq loolu moom kii trois ans wallahi azim ci trois ans yi muy am mars passé la am trois ans euh, fin mars mais wallahi azim ci laa commencé sax di ko di ko di ko di ko jox yenn vitamines yi te vitamines yi sax taxu ko bari noonu. macha allah parce que xoolee ba léegi da ngay gis ne fees bi war ci moom sax ba léegi newagul ci moom. go grand kontaan nañ. si loolu te li nga wax nii rafet la. xalaat bu rafet la. Mhm.